ñoom ñaar fan la ñuy mujjee Boy Jules mbokk yi daw na jël fourrière Mame Cheikh combat bi du yomb combat ñaari ndaama la ko Falaye Baldé mbokk yi kii bàyyi ko Grand Yoff muy combat am solo ci ñoom ñaar ci seen carrière Boy Jules ak fourrière mbokk bu doon Iba Mar ma ni leen day doon combat mag waaye Thiam production jël ko boole ko ci gala bi Boy Jules fourrière ñi ngi xeex seen combat du yomb ñoom ñaar ñëpp nii mel Boy Jules Fourrière daw na jël laa ilaaha illallah Boy Jules daan na Fourrière laa ilaaha illallah ndaanaan la doomu Pikine la xoolal kii waaye xale mu bëri na Boy Jules bëri na bëri